li nga xamante ne bii la booba ñuy daanale ñaari question lay doon. Mhm. Eh, bii ma lay eh, sànni ndax li ñuy wax naan luy dus si nag bi xajul si cin li. dëgg la eh, soxna Awa li nga xamante ni moom la ñu naan actualité réew mi ak ni muy doxee waaye réew mi ak fi mu toll. jafe-jafe yi nekk ci réew mi ñu ko doon jooy di ko doon jooy ba yàlla dogalim dogal tey indi ñu président bu bees boobu ba léegi mu mel ne dégguñu kenn koo xamante ne àdduna jëm ci li nga xam ne moom mooy réew mi léegi réew mi ak ni mu doon doxee ak actuellement suñu président yu bees yi. Euh, yan kàddu nga am loo xamante ne moom ngay dénkaane ndax suñu jeunes yi nga xamante ni xoolal nañu ancien président ba ni ko doyatoo ñu bëggatuñ la jëlee na nga fi indi que ne ban ñaax wala ban leçon nga mën leen a jox pour que ñu am patience li nga xamante ne moom mooy seen i njiitum réew. waaw xam nga Sénégal daa doon dëkk boo xamante ni dañoo yàkkamti te oto lum xat-xat joxal ma sama yaay xaj na ci nit doo sëy si tey togg suba nduggi dem marché xam kër yëpp mënta ne jomaay mi ngi soog a ñëw. dëkk bi li fi yàqu dafa bari te nee naa leen président bi ñëw réew mi dina neex soxlaw ma koo xam xawma ko dégg laa ci am ak rawaan li mu ma wan réew mi day neex lool góor ñi nag ku ci yàkkamti takkal daal takk ndigg dugg ci terrain yi def ko comme xale bi taxaw sa lépp day baax waaye boo bëggee def maase bois ak wax waxi réew mi du dox waaye réew mi fii wëg ci kanam day neex lool day neex lool lool lool sax ba romb neex. Mhm. aji comme ni nga waxee rek soxna Awa euh, lii duf si nag bi xajul si cin bi. Mhm. Euh, tey ji yaakaar naa liñ bëgg a waxtaanee ak yow yëpp amaana mënuñu fee jugee. waaye mën nañ koo dënk ba beneen yoon incha allahu rabbi si kàttanu yàlla eh, dañu lay bàyyi rek nga présenté waat ñi nga xamante ne ñoo lay seetaan képp koo xam ne soxla na la fan la la mën a fekk ndax tamit c'est important ngay joxe fi nga xamante ne bii ni fa nga nekk muy base bi nga nekk ñu la fekk waaye di gën a insister tamit ci loolu ndax dëkk bi daa toj gën a di wër sa toj léeg-léeg nga woon nit mu ñu la man la diw fekk du diw mm-hmm. bëri na fi chaque jour sa mbokk yi di informé lu mel noonu waaye léeg-léeg nga déggante ni mu ne man de am na kuy woote nee nañ man la diw fekk nekkul diw man nga jot jotoo ma c'est très important nga leeral ñi nga xam ne ñoom ñu lay seetaan fan lañ la war a fekk waaye numéro bi nga xamante ni moom mooy marche tout le temps moom mooy sa numéro ci lañ la mën a jotee. waaw man nee naa maa ngi apix croisement apix ku fa ñëw boo taxawee laajte soxnaa wa dañ naan la këram a ngi nale ku ñu ci 77 860 38 68 di ñu jot 77 619 02 33 di ñu jot waaye ñu ci bari man loolu dañ ma koy kalaame da ngay gis kuy toog nee ni man la élément Baye Karim wala ñuy live nga dugal sa numéro le temps que ñu koy dindi nit ñi dañu lay woo nga ne man la élément Baye Karim nit damay woo ñëw naa sa kër gisuma la barki démb dal na ma ci live nit ni ma ñëw naa gis gis naa la kër diw te du man kon ñi koy def nañu ko bàyyi te xam ni jéem bari bokkul ñun lii ñuy def nii dañu ko maîtriser mën ko bëgg succès taxul ñu def ko bëgg taxul ñu def ko bëgg ñu xam ñu taxul ñu def ko yàlla lañu àndal ak sëñ Fallou sama waa ji Fallou Awa Bousso mi ci kaddu gi bàyyal Cheikhul Abdul Karim bàyyi sëñ Abo bàyyi sëñ Baara Falilou ñun kooku la ñu àndal guyu sëñ fàllu lañ ku ñëw apix dajeeg soxnaa wa dootoo ko réccu nee na ni ci réew mi uqa maa ko fi wax wàccaale man la maa lay wax ba nga doyal man la wàccaale ko tur baa ngi lay nuyu nga dégg uqa benn seetkat la muy man waaye nag ñiy def loolu jëmmi yàlla arrêté leen arrêté leen parce que wax jaa ngi bëgg a bëri tamit. Euh, ñi lay seetaan euh, baaxee nañ dañoo baaxee da ngay baaxee di maye ay secret da baax ba àgg ca lool ñi lay seetaan yéen secret nga leen mën a baaxee yoo xamante ni bii nii mën naa sax bañ a yaatu parfois nga taf kot waaye du ñàkk nga am loo xam ne di leen ko baaxee ñi nga xam ne ñoo lay seetaan nekk say xarit say soppe ak say am di jàmm ak ñi nga xam ne saa yoo génnee wax ñu ne gongo. Mhm. damay baaxee ñu ci bari xale góor yi dañu may woo naan ma soxnaa woo dimbali ñu parce que par des fois joxe bi loxo yëpp mënuñoo tàlleendoo ci wàllum kayit yi dañ ciy sonn ma leen a xamal ni leen ku am problème mu kayit demal jënd jaxatu kilo boole ko kayitu tabax libre nga wax ci sa soxla joxe loolu maa ko maye secret la. bu dee ci jigéen ñi ñi nga xamante ni sëy bi daa naqari lool lool lool nobbu efficace bi nag duma ko wax ndax kot laa ciy def mais li gën a gaaw jëla sa mosa sa tayukaayu kër xoot ci sango ci ñetti yoon sa jëkkër sango ñetti yoon. nga def ci ñam bi juboo force la juboo force la xale jigéen ñi bëgg am jëkkër dal la ñetti fan rek daal di saraxe jàkk nga dégg ay xayri loolu maa ko wax. dal koy jënd nga koy jënd sol ko ñetti fan ci kër gi nga dëkk. solal ñetti fan yóbbu jàkk joxe dangay dégg ay xayri force jot a sangu jot dem ci sëriñ naxe bi daa bari. kookooy soxna Awa bu sëñ Abdou Karim Mbacke moom la ñëwoon seet si tey comme ni leen ko waxee luy dugg si nag bi xajul si kin bi mhm. waaye nag tubaarkàlla dañ ah, a bi ah, ko weddi yàlla désactivé la kon Abana Gassi di leen jaaf jëfal seen beneen numéro incha allah rabbi waaye du ma fàtte mukk sama réalisateur bi nga xam ne moom laa àndal na mu baax mi tubaarkàlla saa yoo génne kër yàlla sa jàmm yàgg kon abaa naka si ba beneen yoon incha allahu rabbi jërë ngeen jëf ba beneen yoon bu defaroo daan nga defaru euh, soxna Awa euh, mhm. léeg-léeg damay toog ak ay xale yu jigéen benn kàddu la ñuy wax lan moo waral méttitu bopp yi métti sonal ñi nga ni moom mooy jigéen ñi ba si man mii sax di wax ak yow maanaam méttitu bopp sonal nañu à ce point sonal goo xamante fu ko waay natu weesu na Mm-hmm. te du benn nit ngay dégg mu koy jàmbat wala ñaar ñu koy jàmbat si àdduna dafa bëri. Mm-hmm. lan moo waral guddi yi ni méthode bopp sonal jigéen ñi. rab rab ku sa bopp di metti nga woote ñu la dañ laa sëf du dëgg rab la ak jinne mooy waral bopp buy metti mais dafa mel ni ñoom kon xanaa dañu dëkk ak ñoom. waaw ana tali yi tali yëpp xotti nañ ko bayaal yépp lañ xotti def ko ay tali fu jinne dëkk fi mu ne nii tuxu na soo dee jigéen. ñeme pose xef ñeme pose wee sopplu dina bu la rombee da lay def mbokkam force su. metti daf lay sonal wàllum rawaan daf lay sonal sa bopp di metti ñu naan la dañ laa sëfag feebar bii la du dëgg rab la. ku bëgg mu deñ wooma barki sëñ Fallou ku bëgg tàqali koog bopp buy metti wooma. ci ban numéro. 860 38 68 77 la. mbaa 619 02 33 boo ci woowee élément Baye Karim waaye sëñ fàllu bi mu jox la ci ay tegtal mu leer la nan ñi nga def ko tàqali kook bopp bi métti bu deñul bindaatal ci commentaire yi maay ki koy wax man la maanaan ku lu normalul bindal ragaluma loolu euh, mhm. ñu ñëw si euh, diabète ak li nga xam ne moom mooy hémorroïde mhm. euh, traitement yi ndax léeg-léeg diabète am ko mu dal nga dem hôpital ñu traité la noo xamante ni ndax léeg-léeg ñu wàññi cëru doomu aadama fekk na yow la nga soigné nit ko sax àggul foofu. Mhm. Euh, soxna Awa day traité li nga xamante ne moom mooy diabète ak yeggul hôpital bu yeggul hôpital ndax feebar bu yegg hôpital bu ne tooke am na feebar yu ñëw yëpp sànni muy diabète muy cancer muy hémorroïde muy bu mu mën a doon sànni la lu ñu xas ba dagg du ñëpp lañuy dagg du ñëpp la ñu naan lii la ñuy dal hôpital gisul ngelaw gisul tooke jabet lay gis gisul cancer gisul gisul gisul bu buñ lay sànni gisul korte buñ lay sànni cancer lay gis waaye dama ni bu demagut hôpital boo ñëwee ñu jox la garab bu yeggee hôpital Sonawo du ko faj waaw. bu dee eggul hôpital bu ñëwee si yow koy traité. ñu jox la garab mu deñ. traitement ñaata fan lay doon. jours la. sama traitement 15 jours la bu dee traitement sangat 7 jours la. méttiwul waaw lu gaaw mën a maa ko fa xaar. ayca yaa ko fa am kon. Mhm. Euh, ayca kon soxna Awa ba léegi kon dañuy avancer rek ci li nga xamante ni moom mooy euh, question yi nga xamante moom la war a poser ci li nga xam ne moom mooy euh, tawat yi nga xam ne dal na doomu aadama sonal leen wit. Mhm. dañuy ñëw si li nga xam ne moom mooy ndoxu ti ndax dañoo wax ni dafa am boo xam ne day génn ak boo xam ne dafa nekk ci biir. Mhm. donc nag dañoo bëgg xam lan mooy différence bi nekk ci biir ak bi nekk ci biti ban moo gën a baax ak bi nga xamante ni moom moo lay dimbali ci jàngoro jooju. waaw sista Babel ndoxum siti bi nekk ci biir a gën a bon ndax boo dee jigéen di sëy mën naa tàngal sa biir ba doo ëmb wala lu fa tege rek ndox bi puusaat ko ndoxum siti da koy def nga dem hôpital ñu naan la ay kis la ay fibrome la fekk ni ndoxum siti bi moo fa toog bu nekkee bi génn am na lu ñu lay jox karité la ak liñ ciy def boo ko raayoowee day deñ waaye ndoxum siti ñëpp a ko am ko ko amul gaana nga waaw pour ma leeral képp kuy dox am nga ko dangaa am buy génn ak bu dul génn waaye ak lu mu mën a tollu ndoxum siti ak lu mu garaaw garaaw soo ñëwee ñu dindi ko waaw bu dee bi nekk ci biir tere laa am doomit it suñ la joxee njaq yi boo ko defee ñu la ko waxee mu puus xajal la waaw